yi di leen dalal jàmm ci télévision Futur Média dellu kon di rafetlu ànd jot na xibaaru digg bëccëg gi ca la ñu la ca gën a fës kilifa yi di wéy di dem ci bérébu làkk gi waxtu woowu soxna suñu fanaan Awa Sow bokk ci kon ñafaloru ñàkk lépp ci bagaasam di dànkaafu ñu yëkkati yenn kàddu yu ñaaw yi di ko teg seeni i kaw demee ni mbirum drogue nee nañ duñu ko nangu ñeneen ñu àddu bokk na ca kon sëriñu daara yu ñuy faral kon di joxoñ Aminata Touré moom tontu na Abdoulatif Salif euh, Koulibaly euh, ci li nga xamante ni euh, moom moo aju ci wàllu médiation pénale bi ñu jàpp ni mën naa nekk ngir jotaat koppar gi ñu ni ñenn ñi dañ ko yóbbu ci bitim réew bien mal ak yooyu kii di Aminata Touré ni yëfi kàddu yi latif yooyu weesuwul kon commentaire yoonu ko VDN wa dem ba golf kon jàpp géejewaay danañu ko tàllal ba Tiwaawoon Pël projet bu ni mel tey jii la ñu ko xëy di lancé lu toll ci juróom fukk ak juróomi milliards ci suñuy koppar moom moo ci dugg bu étudiant yi ca fac science euh, di sàkk ñoom ñu jëlee fi recteur waaye it kii di doyen doxub ñaxtu la ñu amaloon démb euh, coow li lépp kon tukkee ci li nga xamante ni moom benn di système LMD ni suut kon mbokk yi ñu yaatal loola lépp dellu kon mbokk yi di rafetlu ànd bi ak télévision Futurs Médias ni ñu leen ko waxee lakk gi woon fii ci Médina bàyyi bakkan kon rot béréb yooyu la ñuy daal di euh, dellu euh, nu ñu yeewoo tey ji kon loolu la ñu leen fas yéene xamal waaw Siñaata euh, moo fa kon xëyoon mbir mi nag jàpp nañu ni lu ñu fa mën a nemmeeku ci lu yees tant yoo xamante ni teg nañu leen fa waaye tey kàddu yoo xamante ni ña fa dëkkee ñi ngi koy wax jëmale ci ñoo xamante ni jàpp nañu ni dañu leen di tuuma Mal awa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ngone. Eh, kon eh, lu ñu mën a jàpp ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkee foofu ca boori Medina. waa Ngone comme ni nga ko waxee rek fii amul benn problème ñëw nañ fii gis nañu nit ñi waaye nag nit ñaa ngi continuer di ñëw rek di jaale si ba tax na kii di Awa Sow daal di profité ci occasion bi nee na day dankaafu ñi nga xamante ne dañ leen a tuumaal di leen wax ni que ni ay drogue lañ fa gis wala jigéen ñi dañuy def naka si dul noonu. moom mi ngi koy ñaawlu lool nee na ñoom vraiment du loolu moo leen tax a jóg ñoom de liggéey rek la ñu xam donc nee na nit ñi bu ñuy wax nañ wax lu leen leer waaye nag suba ba tey li ñu fi nemmeeku mooy nit ñi ñu ngi ñëw jaali si ak euh, defal nañ leen ay tànt daal ci suufu tànt yooyu lañ fanaan. Mhm. Ngoné Ngom. Euh, situation bi tant yi bari nañ fa wala pour l'instant yembamaay nañu fa daal ci béréb yi condition yi. waa pour pour l'instant yembamaay na parce que a ci boppam sax mi ngi doon wax ni ay tànt lañ leen jox ak ay pilo donc lekk bi tamit des na moom loolu la doon wax sànq ni fa toll Euh, ñu gërëm ko kon moom Awa siñaate doon euh, indi ay leeral ci situation ba fële ca Medina nee nañ kon euh, tant yi ak piloweer ndax sedd bi mu des sa lekk gi du ñàkk kilifa yi ñu ngi leen di déglu lakk googo bu ñu ca desee am nañu ñu ñu ca tuumal sëriñu daara yi kon ni ñuy faralee di dajale ndongo yeeg yu ni mel ñaar ca ñoom tontu nañu ci ku ñu naan Aboubacar fay waaye it Moustapha Gaye jàpp nañu ni xëy na am nañu ci responsabilité waaye yëf yi yamuñu ci am na it ñeneen ñoo xamante te ni ñoom la ñu war a joxoñ baaraamu tuuma rax ci dolli euh, ñu naqarlu euh, pété gi nga xamante ni nguur gi pété ne ko ak lekkool yi jàngale tubaab seetaan kon li di daara yii dañu jub taataan seen i kàddu. responsabilité dafa séddaleku ndax responsabilité yi bu fekkente ne boo xoolee ni réew mi tëddee ñi fi nekk ñëpp mënuñoo am ndandoo jàng français kon fokk am ñeneen ñoo xam ne daara la ñuy jàng ña ñuy daara ñay jàng daara nag warloo leen dara. kon seen volonté bopp ak seen moyen bopp la ñuy demee nguur gi amelu leen benn fifteen budget bi ngay dégg lu jëm ci éducation nationale lépp fenn rek la jëm mooy ñi jàng tubaab ñi jàng français ñoo leen tabaxal école utal leen ay professeur di leen fay forme leen ba njuumte yu bëree baree bare de ñu mën cee mucc loolu buñ ko defaloon ci wax daara yu baree bare yi ñuy wax ci daara yi du am sëriñ daara itam ñu bàyyi waat xel bu baax xoolaat seen bopp xam yan conditions yi la ñuy yore doomi jàmbur yi ndax bu fekkente ni da weexu donc euh, ñi lay xeex bari ñi taxaw ci sa gannaaw bari di di di déglu say fot ak say ak say defin yow da ngaa war a fexe ba sàmmonteeg yu bare baree bari ba bu la yàlla dimu nga mën cee mujj waaye wax di yàlla am na condition yoo xam ne yor ci xale ah bu ca yenn yi xewee itam pour ñu mën laa protéger day xaw a jafe kon ñi itam ñun ñi nga xam ne ñoo yor daara yi ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax bëgg yor daara bu la dugal ci. nekk ak ñoom ci condition yoo xamante ni jaaduwut lama ci bëgg dool rek mooy ñuy séparer daara ñi jàngale ak daara ñi nga xam ne dañuy taxawal turu daara ngir wut xaalis loolu itam dafa am ci biir dafa am ñoo xamante ni dañuy taxawal lu ñu nuru daara ngir di mën a utilise xale yi di leen wuti xaalis. di euh, dund ay jafe-jafe ndongo yeeg euh, ñu ni mel ba waral sax moo tax kon ñu leen di wàcculoo euh, ci tali bi di yelwaan ak yenn yi waaye ñenn ñi gis ni xëy na. Euh, bu waajur yi doon faral di làmb seen poos ak euh, di leen jàppale situation bi du demee noonu am na nag béréb yoo xamante ni loola la ñuy dund Fatou Kiné Deme Youssou Baro ànd nañu fa. daara ji yemul rek ci njàngaleem alxuraan a taxawaayam mooy tamit gunge xale yi bu baax ci naka lañu ñu war a nekkee ci biir société. bi ñu duggee ci jàngale xam ne ay doomi daara lañ dañ ni nañ téye démb waaye nañ ubbi ko ci tey téye démb mooy lan daara suñ giseen ci daara mooy programme bi ci biir lépp a ngi ci ndax tey bu ñu dee wax daluk Sénégal ak jàmmi Sénégal ci daara la jóge ndax mbooleem kër yu mag yi nga xam ne ñooy kër diine yi sànq Sénégal foo fi dem tàmbalee ko Touba jëm Tivaouane foo mën a dem Njaasaan ñu sant taal ak ñépp foo fi dem kenn référence ya fa nekk seen ballukaayu xam-xam ci daara lañ jaar daara lañ yoroon ci lañ formé woon nit ñi ba nekk ba Sénégal nekk lim nekk tey. lu ëpp ci daara yi alxuraan yi ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe am na ci ay daara yoo xamante ni ay waajur ñooy jàppale daara yi bu baax ci wàllu koppar ngir seen njàngum doom mën a dëgër. prise en bi mooy problème ci daara yi ndax bu doon tey xale bi day yalwaani rek prise en charge moo tax mu yalwaani mooy xaye na lum lekk ak lum dunde ak lum fajoo wala yu mel noonu léegi nag loolu gis dañoo gis ne mooy dëgg dëgg problème bi ñun nag foofu lañ njëkk attaqué. fexe ba du am mu yalwaan du am ci suñuy daara mooy dañoo fexe ba ku fiy indi sa doom maanaam dangay am loo koy booleel. bu fekkee yenn daara yi amuñu lool ay jafe-jafe am na ci yoo xamante ni ay jafe-jafe kese la dund ba tax na ñuy sàkku ci nguur gi mu jàppale leen bu baax a baax rawatina ak waaye defal yàlla yi. gis nga li ñuy wax ak ñàkk dafa metti te bëri na koo seen ci benn situation bala nga ko balaame. danga koy jege dimbi ko bam mu lànk nga door ko yedd te daara yi ñun ñii li ñuy góor góor góorlu ay jafe-jafe dañ ko bari ndax buñ nee la gone fii ci Dakar imaginer nga luye kër ba ndax luye nañ fukki at ak juróom door a am fii daanaka ndax nit mën naa bëgg te du man te tële nag du euh, comme yàlla bu yàlla bu mu ñu dal waaye comme dal nga xam ni tële baaxut daara ji di Cheikhul Khadim ñi ngi ko sos ci atum 1996 tey li fiy jàngee ci xale toll nañu ci juróom-ñetti fukk ak juróom ñi ngi fiy tàmbali bu ñuy am ñeenti at. yeneen i xale eh, ñoom it eh, seen eh, waajur seen loxo jotul seen ginnaaw ba waral kon am ñoo xamante ni jël nañ dogal taxawu leen fédération Dimbaya bu Ziguinchor di kon doxal nu ni mel jëmale ci gone nga xamante ni ñu ngi dund yenn situation lu toll nag ci ñeenti junni ci ndongo foofa ca Ziguinchor am nañu nu ñu doxaleek moom Bakary Konté depuis ñeent at fédération di Dimbaya Kandialang nekk partenaire ak Caafoon Sénégal ñoom ñu ngi organiser sapin de nouvel an ren nag la ëpp ci ay xale ñoom am nañu ay kado bi mooy ñeenteeli at bi dañuy jox xale yi cadeau at bu njëkk bi ñu ngi joxe 300 euh, cadeaux ren 4000 ñeenti journée donc mooy suñu xale yëpp ku ci ne am na cadeau waaye li ma doon wax sànq si souf mooy xale yi ren jox nañu ñëpp waaye déwén. vraiment xale yi nga xam ne ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a euh, am ay résultats yu baax ci école bi ñoom la jox cadeau yi bu weesoo loolu tamit cadeau yi nga xam ne dinañ ci mën a jàng dinañ ci mën a foo en même temps te fédération bi ak Child Fund def suñu kéemtalaay kattan si suñu activité ñu woowee 24 heures des enfants bi nga xam ne dañuy jox xale yi ñu ñu exprimer wu ñu foo niñ ko bëggee ñu ñu ñu ñu jouer ñu ñu bind dessiner. objectif boo xamante ne fédération Dimbaye ak Child Fund Sénégal moom la ñuy mooy jàppale ay xale yoo xamante ne ay néew doole nañu xale yoo xamante ne dañ lay exclure nekk ci ay jafe-jafe eh, ba nag daal leen aar ba ñu nekk ay mag nekk ay parents nekk ay leader. suñu liggéey liñ ci séntu mooy mooy xale yi doon ay xale yu yi nga xam ne seen euh, ëllëg dina baax donc euh, loolu mooy suñu objectif suñu objectif mooy xale yi am wér yaram jàng bu baax ngir mën a nekk ay euh, kilifa. suba parce que ñun liñ ci séntu mooy ñu respecté droit xale yi xale bi nga xam ne judd na war nga ko bind ci euh, état civil xale bi nga xam ne dem na ba commencé am ñetti at war nga ko mën a dugal école xale bi nga xam ne feebar na war nga ko mën a toppatoo yóbbu ko mu dem faju Dimbey ak Kañalaan nekk na fédération boo xamante ne sept association communautaire la boo xamante ne ñoom seen taxawaay mooy taxaw ci développement askan bi Thank you. wax ci meneen mbir kon euh, soxal dem ak dikk bi yoonu ko VDN bi danañu ko wéyal dogalub tàllal ko boobu tey lañu ko door njiitu réew mi Macky Sall xëy inauguré ko liggéey bi ñu ni danañu ko def nag ci ñaari pàcc section bu jëkk bi euh, dana dooree Cissés euh, fii foar kon dem ba kon waaye beneen section bi géejewaay Tivaouane Peulh lay doon loolu lépp ñu xayma ko ci koppar mu toll ci juróom fukk ak juróomi milliards xaalis booba nag di ci dugg fekk nañu maoétien euh, banque islamique waaye it euh, nguurug euh, Sénégal wax ci menenu mbir étudiants yi nekkee ci faculté science ak technique ñoom ab dox marche pacifique nag lépp ci jàmm lañu ñu amaloon ci altine ji la ñuy naqarlu mooy lii di système LMD bi indi leen gàllankoor ci seenum njàng waaye mbir mi nag mel na ni am na lu ñu ca borosaale demuk recteur waaye doyen Marie-Christine Mendy am mer ba futu la ndongo yi nekk ca université Cheikh Anta Diop bokk ci faculté science ak technique def lu ñu mel waral ba ñu amal ab doxu ñaxtu wutali buntu rectorat ba lu ñuy ñaalu nag bokk na ci système gu yees gi ñu dippee LMD. mbaal ancien système yi nga xamante ni da nga daan am maîtrise maîtrise dara la nga dem école normale ñi dem out prescription ñi dem feneen ak feneen ñeneen ñu sélectionné mas xam nga bu njëkk ba doo dégg problème massification que noonu la ñu mën léegi ñu amul benn professionnalisme ñun suñ deuxième semestre trois matières lañ doon def sur trente crédits loolu loolu yenoon a xel ci yow te da nga war a def bi ne mémoire ñun loolu defuñu ko di di di di di di examen ci ay ay ay ay ay taw lu ne gis nañ ko fi licence bi dañ koo xeex nii am ko la ñaanuñu ko sooñu ko dañ koo xeex am ko du ñu nangu nag tey ñuy naan génn leen parce que am ngeen licence boo xam te ni boo génnee si biti maçon bi sax la tane. ndongo yi di sàkku ñu daal di jëlee foofu kii di recteur ba ndax dañoo jàpp ne mënul saafara seen i jafe-jafe. 10 ak 15 janvier gis nañu ak defe responsable Massey 17 janvier ñu gis chef de département yi man sax ca laa bokkoon le 25 janvier ñu gis doyen waa ji ak les différents chefs de département le 30 janvier ñu def benn marche pacifique amul benn problème dañoo jóge FST dox ndànk ñëw bu rectorat def suñu sitting dellu le 31 ñu gis recteur. mu wax ak ñun waxtaan ak ñun le 4 jan le 4 février ñu gisati waat recteur le 17 février ñu def benn demande d'audience ministère de l'enseignement supérieur ba léegi dara. recteur bi nee na loolu noonu da koy dépassé doyen nee na mënu ko ngala nag boo nekkee ci kër xale yi mënoo wax ak ñoom demal sa yoon. Euh, lu ñu bëgg nag buñ leen ko defarul ndongo yi dàkku ñu sax daal di dakkal jàngale mi foofee ci biir université bi. ay yomb ñun ay étudiants lañ sama kàddu étudiants yi nii ñun ñëpp ay étudiants lañ faculté bi ñun ñoo ko moom doyen buy liggéey ñun a tax recteur bi fi liggéey ñun a tax maanaam ñun bu ñu jëlu masse année balance day am bul sonal sa bopp année invalide sax mu baax na kenn du jàng. lu jëm ci wàllu ñu jiite l'université bi ba léegi nangu ñoo yey yàbbi ci mbir mi lu ni mel yokku mer ñeenti téeméeri ndongo yi fasul yéene dellu ginnaaw benn yoon ci seeni ñaxtu. doon nañ ko wax ci ndoxteelu xibaar yi Aminata Touré tontu kii di Abdoulatif Coulibaly euh, euh, ci li mu ni mën naa nekk médiation pénale ngir jotaat xaalis bi ñu jàpp daal ni am nañu ko jël euh, te lewu leen bien mal yooyu soxna si kon kàddu yooyu Abdoulatif Coulibaly yëkkati woon ci nee na weesuwul commentaire Daniel Diouf ngir jot ci alal gi noon jot ne ay kàngamu nguur gi fi newoon ñoo ko luubal taxawaayu njiitu réew mi ñeel alal googu soppeekuwul loolu Aminata ture mi yor justice dëggal na ko ci ab laaj ak tontu bu dox digganteem ak yéenekaay bi di l'Observateur ci talaata gii natangoom bi di Abdou Latif Coulibaly di jëwriñ gi ñu dénk bonne gouvernance woon na ci RFM ci dibeer gi weesu ne lu mën a nekk la nguur gi di arrangé wu ak ñi ñoo njort ne dañoo alalu ci anam yu dëppawul ak yoon mu ni woon sax luy moytul état bi ay dépense la dañ ne ki nga xam ne dañ ko tuumaal bu demee ba nangu tuuma loolu mën na ñëw toog ne nguur gi ay la yowén li ngeen may tuumaan lii toll la laa ci laa ci def boobaa nguur gi def ko yow li nga ne jël nga ko boo joxee lu ñu toll nii manañ seet naka la ñu arrangé mbir mi loolu loi moo ko prévoir président de la république ci nga xam ne moom la ko yàlla sédd mu yor réew mi dañ ko ne yow yaay ki nga xam ne yaay aar bépp patrimoine boo xam ne réew mee ko moom ci kaaraange googu nag moom mooy wax ay technicien am ne leen mënu leen a wàcc téeméer bu nekk juróom fukk il ngeen jël lu mu néew fukk loolu duul ne du caa du du tekkiwul ne juróom-ñett fukk rek la jël cas par cas lañ koy seet kii mën nañ ko jëlal juróom-ñett fukk kii mën nañ ko jëlal juróom-ñett fukk ak juróom kii ko juróom-ñeent fukk kii jëlee ko juróom-ñeent fukk ak juróom lu ci nekk rek mu nga méngoo ak yelloo la nga xam ne gouvernement bi gis na ko ci moom jàpp na ne lii la def te am na ca firnde ne lii la def. ci yéenekaay bi di l'observateur Aminata Touré mi yore justice nee na Abdou Latif Coulibaly dafa rek wax xalaatam te am na ci droit donte sax moo yore kàddu nguur gi. waaye Aminata Touré nee na li soxal gouvernement bi mooy jot ci alal ginoo njot ne den ko luubal te ci kaw loolu gouvernement bi fas yéenewul benn yoon négocier ak ñi ñoo tuumaal mbala ñi leen di tudd ci yëf yi. wàllu koppar ba tey jii bi yoon finance islamique fas yéene taxawu kon wàllug euh, mbay mi waaye it mbiri infrastructure euh, jàpp nañ ni yëkk yëf yi bu ñu koy def dañ ko bëgg a def daal ci taux boo xamante ni euh, dana yemb wuuteeg li ñuy faral kon di gis ci banque yi loola waral ñu amalam ndaje ci yëf yi door ko tey jii kii di di sa préra di ci indi leeralam ci Youssou Baro crise financière bi lëmbee àdduna bi at yi passé daanaka finance islamique rek moo ci mucc looloo tax réew Afrique de l'Ouest yi war ko dooleel bu baax a baax. Euh, xam nga boo jëlee euh, finance islamique wala finance normale bi banque normale yi taux de bancarisation mooy maanaam nit ñi nga xam ñooy de am compte bancaire di ko utiliser bëriwut kon nag loolu dañ ko bëgg yëkkati waaye boo xoolee ci biir nit ñi am na ñu bëri ñoo xam bëgguñoo dem banque ndax bëgguñoo def loo xam dëpput ak seen diine. léegi li ñu jàpp nag ak nguur gi mooy su fekkoon yaatal nañ finance islamique ba ku bëgg a dem ci bu lu neexee dem ci euh, maanaam taux de bancarisation bi dana gën a kawee maanaam nit ñi utiliser banque dana gën a bëri. bu finance islamique duggee ci wàllu microfinance dina jàppale bu baax askan wi ndax li di taux d'intérêt yi moom daf koy dindi. beneen bi ci itam microfinance nga xam ne mooy fexe ba ñi nekk ci àll bi mën a am accès crédit mën a lepp mën a fayu bii dox nag fi mu ne am na doole waaye nit ñi dañoo seet ne taux d'intérêt dafa kawe te bu yàggee itam day. day day day newal doole nit mi te safaan bi la waroon doon léegi nag dañoo bëgg bu ñu ci dugalee finance islamique nga xam ne système la boo xam ne dafa jub ba noppi amul riba te kenn du jariñoo sa morom bu yàggee dina dimbali population yi. ñetteeli édition forum bii di waxtaanee naka la finance islamique di mën di investir ci mbay mi ci infrastructure yi ak ci microfinance. gannaaw koppar yi aada cosaan euh, turbular mu di kon benn exposition boo xamante ni ñu ngi ko jàpp juróom-ñetti fan ci weeruk euh, mars la war a tàmbali dem ba fukki fan ak euh, juróom-ñett ca sali nag la ñu koy defee loola di maye kon ñu fësal artiste yu bari rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jeune talent yi fas yéene liggéey ak ñoo xamante ni ci wàllu peinture ràññee nañu leen ñu toll kon bi yoon ci deuxième édition bi lépp ñaar fukki artiste ñu leen cay Xibaar Nafissatou Sylla Tanor Ba Turbular wala turbulence ci espace culturel bi mooy turu ñaareelu édition bu exposition art plastique et musicien ay ndaw yu yëngu ci peinture sculpture photographie ak way yu nar a jóge fu ne ci réew mi ñoo fas yéene wane seeni liggéey. Turbulart effectivement. Turbulart man boo xoolee dama ko booleek moo bi nga xam ne moom mooy turbulence bi ñu faral di nemmeeku ci aéroport yi ndax boo seetloo ci benn aérodrome la ñu nekk te wàllum aéronautique dañ ciy faral di seetlu ay mouvement air yoo xam ne dafay faral di bari moo tax nag exposition bi mu tuddee ko Turbulart. ay tableau d'art ay céramique sculpture. ak tapisserie dana bokk ci ñu exposé di leen jaay ndaw yi defar yooyee nag ay artistes yu mag leen nar a gunge loolu nag ñu namm ci gën leen a dooleel ci li ñuy liggéey. ñu leen jàppale parce que bi ñu lancé candidature bi dafa am artistes yoo xam ne artistes yu mag la ñu xam fii ci réew mi ku ñu wax Tita ku ñu wax euh, Barkinaado Bokum ak ñeneen ñu mag ñu Abdou Aziz Kane ñoom ñoo ñëw bokk ci exposition bi joxe seen œuvre participer ci participer bi mooy dañu ñëw jàppale waaye accompagner xale yooyu pour xool ñoom it li ñuy liggéey xam ne war nañu mën a échanger mooy indi tey suñu demee ba ci kanam ñu xool lan la ñuy def pour def benn genre defal yoo xam ne di leen leen jàppale ci li ñuy liggéey. exposition bi nag fas yéene am juróom-ñetti fan ba fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu nekk li ko tax a jug mooy suqali tourisme foofu ci Saly waaye tamit jàppale ndaw ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci aar foofu ci mbuur ak Thiès. il y a une grosse demande je me suis aperçue à ma première édition il y a un grand engouement dul laajte yi maa ngi koy fàttali ci première édition bi beneen bi nga xam ne moo tax ma defal édition bi mooy promouvoir artistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci région de Mbour ngir ñu am possibilité wane li nga xam ne moom la liggéey ba nit ñi mën leen ciy dimbali. ils n'ont pas la possibilité et ils n'ont rien comme support. fi ñu nar a defee exposition bi nag kenn tànn ko ci neen mu ngi nekk domaine de Kalahari nekk foofu ci Saly ngir ñu organiser exposition bi nag lieu bi dafa am solo lool. oui domaine boo xam ne dama ci gis sama bopp bu baax la dafa nekk lu lu lu doy waar te tamit lu rafet loo xam ne kenn mënu koo expliquer euh, daal. y a y a des choses a des ressources y a bi ñu ñëwee sama atelier ñu waxtaan ci ba pare man leen bàyyi leen ba ma ñëw xool fi ngeen defee exposition bi bi ma ñëwee gis espace yi. ma gis ne vraiment fii lu jara exploité la. ngir ñaareelu édition bi nga xamante ne at bu nekk dañ ko bëgg di féddale invité d'honneur bi mooy manufacture sénégalaise des arts décoratifs bu Thiès ci manifestation bi nag fas nañu yéene amal ay concert ak ay musiciens comme Ampaté et le Sahel Blues ñu di ko amal ci tarmaku aérodrome bi njaayum œuvre bi nar ko foofu nag ñi organiser exposition bi fas nañ ko yéene jël xaaj bi jébbal ko école élémentaire bu Sali Joseph xibaaru bitim réew euh, njiitu réewum euh, Mauritanie Mohamed Ould Abdelaziz moom euh, dëggal na ci altine ji kon fële ca Nouakchott ni réewam kon Mauritanie dana intervenir dugal loxoom ngir xeex crise ba fële ca Mali kon pipp yaamal ko rawatina islamist ya nee na la ko waral bokk na ci kon kuréel gi ëmb mbootaayu xeet yi force militaire yi kon danañu teew fële ca Mali njiitu réew ma fàttali rôle bu am solo bi nga xamante ni Mauritanie joué na ko ci wàllu kon xeex bi foofa ca Mali ngir rek dakkal yéenay islamiste yi foofu wàllu tàggat yaram bu ñu ca taxawee dañuy àddu jëmale ci Coupe d'Afrique des clubs bi Casa Sport mi qualifié ngir Champions League bi ñoom Casa nag dañu éliminer waa Tétouan àgg nañu nag ba ci kon turo bi ca dimanche ji ca stade Demba Diop la woon Cheikh tijan Diaw ci leeral but bi yéex na ñëw ba sax kenn xaaratu ko woon sauf peut-être joueur yi nga xamee ñu ngi doon wéy di attaqué Ben Badji ci reprise de volée bu am solo libéré Stade Demba Diop yëpp te pourtant Casa Sport dafa égaliser rek ci ñaari match yi ngir attel ñaari équipe yi dañu dem ca teg dóor fa la joueur Casa yi gën a jubee tànk ñu daan Tetuan ñett bal ci benn. muy élimination euh, bu métti lool coach Maroc bi di naa ñu pelouse stade Demba Diop. pareil et avec euh, le vent. sama équipe footballul euh, ndaxte polose bu bon bi ak ngelaw li lii kenn mënu ci football fi mu nekk nii considération technique yi du ma ci dugg ndaxte li fi am tey mënoo xam niveau équipe bu Tétouan ak même équipe bu Casa Sport bi mënoo xam ci ban niveau la ñuy football. Sénégal ni juger notre équipe. côté Casa Sport ñu bég loolu ci qualification bi gis ni ab défilé woon bu ñu relever. bégte bégte gis ngeen ñi ñëpp taxaw ci biir ci tribune c'est parce que dañ ko gëmoon ñun ñu gëmoon ko ñoom ñu gëm seen équipe tey bu ñu ñëwee dañu ne xale ah, lu ñuy joué nii joué ko pour ah, Casa Sport rek dañ ko joué pour ah, dëkk bi yëpp mooy Sénégal yëpp tey suñu suñ fi tolluwee ñoo ñoo fi indi suñu bopp. lépp lu ñuy def depuis ñeent à ñeent ba ren juróomi at saa yu ñëwee premier tour coupe d' rek ñu éliminé ñu et ay métit la métit la ensuite ñëpp la ñuy boole ci même même même même euh, coono bi maanaam équipe Sénégal mënuñu jéggi premier tour. Casa Sport ci tour bi ci tegu dinañu dajeek euh, doomu Mali yi di stade malien muy derbi bu nar a neex waaye laata loolu euh, ña ngay wane seen mbégte ca stade Demba Diop. wàllu tàggat yaram kon ñu doon àddu ci euh, ndam loolu Casa Sport am euh, ak si ci beneen pàcc ci journal bi euh, dalal kon suñu gan Ousmane Sawy Charles ñu ngi leen nuyu monsieur Charles. bokk kon ci kuréelu écologiste si ñuy waxtaanee mbir mi nga xamante ni xew na tey jii kon keroog fecc Medina tey jii dëkk bi yëpp di ko coow bi nga ko déggee lan moo njëkk doon sa réaction. ñun xam nga ñun écologiste yàgg nañ ko wax euh, citoyens yi ñoo dul respecter ndigalu état bi maanaam duñu ñu respecter loi yi loolu tam euh, suñu état bi am na ci fot bu bari ndax Sénégal mooy dëkk boo xam ne ci Afrique mën nañu wax bokk na ci ñu dax loi seen loi yi génn rafet ci fii la fekkee baax am na ñeneen tamit waaye loi yoo xam ne ñu ngi ci ay tiroir kenn du leen appliqué loolu mooy suñu sikk bu jëkk te lii yëpp ci loolu lay lay jóge mais ci naka fi instant yi bu fekkoon appliqué nañu loi bi lu ci charte yi jotoon na wax loo xam ne bu buñ ko defoon tey jëye ji duñ ci accès parce que mbirum dëkkuwaay la mbi mbirum citoyenneté la mbirum responsabilité familial parental loolu yëpp ci la te loolu lu ci nekk am na lu ci loi bi wax lu leer nañ dem ba dëgg naa ci seen antam antenne bi benn architecte bu fi ñëw wax lu leer nañ ki mbirum tabax nag la dëkkuwaay yi war a dem ñun écologistes yi xam nga ñun suñu xeex waay suñu xeex yépp mooy dëkkuwaay yu sel te loolu moom euh, boo ko xoolee ni ko architecte bi waxee loolu rek la dañuy bàyyi ñuy dëkk ay façon yoo xam ne loi bi daf ko tere lu tax duñ ko duñ ko tere loolu. mais ci ci wàll woowu bu ma ci taxawee tey jii ñëpp a ngi wax kilifa yi ku ne yaa ngi défilé ku ne ñëw mastaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo dund mbir moomu mais bu ñuy xool liñ naan dara beesu fi a rien de tey jii xëy na am na loolu Medina mais ci yeneen zone ñeneen ñi ngi fay dund euh, situation pareil te kenn waxu ci ñu ngi seetaan ñàkk ñu xëy na li am fii am foofu ñem ñu ngi wane ci benn reportage mm. ñoo xam ne ñu ngi ci ay maison abandonné bu ñuy wax wàllu dëkkuwaay ay mm. zone inondée def fa ay xale euh, te ni ma ko waxee dara beesu fi ñu ngi toogaat xëy na tey Medina moo aye bu ñu sañoon mu yem fi mais euh, ci wàllu woowu lan lañu ñu war a def pour yëf yi dàkk ba faaw. Euh, dëgg la ni nga ko waxee dëgg dëgg dëgg état bi mu ngi seetaan dañu doon seetaan parti politique yi sax ñu ngi seetaan kilifa ñi am ay responsabilité ci gestion dëkk bi dañuy seetaan ndax dëkk bi am na ay loi yu leer nañ ci fànn bu nekk am na loi lu tax du ñu leen appliquer nag loolu mooy problème léegi comme dëgg nañu kilifa réew mi démb ba mu fa demee li mu wax mu ne bëgg nañu que lii mu bañati fii am ñun suñu gis-gis ñun écologistes yi benn mooy xale bu juddoo dafa am famille dafa am papa ak yaay loo seen mission mooy yar ci fu ñu cosaanu fu ñu dëkk ak seeni doom xam nga bu ñu waxee loolu. kon daal yow bu ponk boobu rek d'accord ci ni ñuy faral jox ko sëriñ bi. ne ay yaxam laa la laaj ñoon d'accord ñu ci loolu. ñun dañu ne man mi mi wax ak yow sama doom du dem daara du dem ci dama ko dënk benn sëriñ ñu ko jàngal am na ñeneen ak ñeneen am na ay ministres yoo xam ne boo leen laajee est-ce que sa doom mu ngi yelwaan ak potu tomate ci tali bi dina la ne mukk ci àddina. waaw lu tax dina dinañ la man dama am responsabilité dama yar samay doom xam naa leen. léegi question bi mooy lu tax ñuy joxe seeni doom marabu yi lu tax ñuy def loolu dañ la ne ci raison yi ah ki euh, loxoom jotul gannaawam amuñu moyen ak yooyu ak yooyu ñun li ñuy wax mooy xale yi en tout cas yu nekk fii ci dëkk yu mag yi. Mm-hmm. parce que fii la xaalis bi nekk. mbir mi du dara lu dul xaalis mbirum xale yi président bi wax na ko exploitation xale yi la li ñu war a def benn. xale yi nekk ci grande ville yëpp dañu war a saytu kan mooy seeni waajur kan moo leen jur ñu listé ko xale bu nekk ñaar état bi jël ndigal ñu ne parent bu nekk may nañ la 72 heures boo jël siwul sa doom gendarmerie dina leen fekk fi nga nekk indi la sa doom booku mhm. mooy ñaareel bi ñetteel bi léegi bu fekkee ne yóbbu nañu xaleel ci ay waajurum ñoo xam ne ñooñu amuñu dara seen loxo jotul seen ginnaaw état bi am nay programme sociaux ñu ngi gëstu ci ay nu ñu ko wax bourse familiale ñu ngi bëgg a jàppale ay ñu noo néew doole yooyu léegi état bi comme loolu mooy mission dina dem ci gox gu nekk dem seeti ay parents yoo xam ne ah kii am na juróomi dem wala daal mënul yor juróom yi ñetti la mën a yor état bi nekkoo pour yeneen ñaari yi état bi dina la jàppale ci lii waaye xale yi fii la toog yaa leen di yar xam fu ñuy dugg daara fu ñu war a dem waxuñu bu ñu dem daara de mais nañu dem daara boo xam ne sa wote kër la nekk bu ñu wàccee yoo yaa leen di jëli ne yóbbu leen gis nañ fii ay parents yu bare sa doom bu demee jardin bu wàccee yaa koy jëli wala bu demee école primaire boo amulee ko euh, gardien bu koy jëli exactement loolu la ñu war a def daara école la xale yi dañuy dem foofu di uti xam-xam dañuy war a dëkk ak seeni parent ñi leen di jàppale ci njàng boobu saa yu ñu wàccee ñu jàppale leen di leen surveiller xam ci loxo kan lañ nag te leneen aussi kenn contrôle ñi nekk ñi yore daara yi di fa jàngale waaye war nañu saytu kan mooy jàngale foofu est-ce que am nañu niveau yi est-ce que am nañu pédagogie bi est-ce que am nañu sañ-sañ bi kooku am na fii ñu am xam-xam boobu pour saytu loolu dëgg naa fi ñu bari di ko wax foog ñu saytu daara yi ñu toogu weccoo xalaat ci loolu yëpp mais xale yi war nañ leen génne ci tali bi. waratuñu mais ci lool yëpp xam nga yàgg nañ ko fi wax arrêté mendicité bi dugg na fii génn fii mm. est-ce que yaakaar nga tey ji monsieur Huchard euh, nguur gi euh, juumul ci yoon wi mu teg wàllu solution ndax en fait tegu nañ ci yoon wu war bi nga gis nii. Mm, léegi daal mm, pour comme ci loolu lañ nekk maanaam solution bu mun a wéy. durable boo xam ne dañuy. parce que ñun écologistes dañu nous sommes très attachés à la durabilité des choses mën a wéy mooy xale yi seen i waajur yor yore leen dugal leen ci daara boo xam ne seen i ñetti kër lañu nekk dëkk bu nekk ci Sénégal war na am daara te loolu mus na fi am bu yàgg bi il cinquante ans boo xoolee bu baax xale yëpp fu ñu juddoo foofu la ñu leen di jàngee alxuraan école primaire bi nekk ci seen ñetti kër foofu la ñuy jàngee nañu def loolu état bi jàppale daara yi nu muy jàppale école primaire yi jàppale daara yi ci gox yu nekk ci Sénégal comme ça xale yi génn ci dëkku yu mag yi ñu dellu seen dëkk ci seen i wetu waajur ñu lay gërëm di la sant Ousmane Sow Richard ci wàllu solution euh, situation ba xew kon fële ca euh, Médina joxe ci xalaatam ñu koy euh, jaajëfal xale yi kon des ci kër yi rawatina ñu nga xamante ni ay 2 ans 3 ans ki 4 ans jaajëfal moom it Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yi di leen gërëm di leen sant ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii kon la ñu yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg bi incha allah ngoon juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu rédaction bi dana dellusiwaat ak yéen ci yeneen i xibaar ñu yendu jàmm